yéenekaayu kër gi lañ koy dooree journal l'info euh, l'info mi ngi xëyee moom aussi li nga xamante ne moom la sortie du mouvement yanamar di wax euh, vague d'arrestation pour délit d'opinion yanamar sort euh, du silence yéenekaay bi di l'info del soir na si yenn déclaration yi nga xamante ne amoon na ci conférence de presse boobule ci biir yéenekaay bi ba tey ñi ngi wax octobre rose l'appel du chef de l'État ñu ci doon wax tout à l'heure appel bi nga xamante le chef de l'État def na au Sénégalais par rapport ak octobre rose Bougan Cheikh Yérim ak ki nga xam moom mooy Kader le procureur déchire les dossiers moom la info xëyee ndax ñoom ñett ñëpp mujj nañ laa mujj nañ leen a libéré euh, démb nomination euh, d'Aliou Cissé à la tête des Lions un déclic sur les bancs des sélections africaines yéen kaay bi di l'info euh, dellusiwaat na si si lu yaatu suñu jógee journal l'info ñu ànd xool beneen yéen kaay xool ñoom aussi lan la ñu xëyee tey réew euh, quotidien réew quotidien mi wax poursuite contre Cheikh Yérim et Bougan Gaydani. le procureur arrête tout leur dossier euh, classé euh, sans suite ci yéen mi ngi wax une mère de famille agresse sauvagement sa voisine et tente de se suicider waaw muy benn fait divers boo xamante ne mhm. réew quotidien xëy na ko tey ñu jàll si beneen yéen kaay bu ñu jógee si quotidien Source à Mambaïnian au MONU, audition euh, hier de l'homme d'affaires Abdoulaye Silla par la section de recherche mu ngi si li nga xamante bokk information euh, source à xëyee Noko, Demba, démb bi ñu libéré ki nga xamante ne moom mooy euh, Bougane conférence de presse ba tax source à di wax Bougane persiste et signe ci yéenekaay source à ba les engagements de Jean-Baptiste Tintin. mi ngi ci les délits d'opinion les interdictions de sortie du territoire au menu d'une réunion tenue hier entre la société civile et le ministre de l'Intérieur Mom euh, dellusiwaat na ci lu euh, source à de jour euh, et Kader libre le ballon se dégonfle le procureur classe les dossiers sans suite Yana en qui déclare ce qui n'a pas été accepté sous Maki Ewad ne saurait l'être sous Chomaï. Mounia Sissé. salue la posture du ministère de la Justice et appelle à élever le débat ci yéenekaay bi ba tey supposé société de mambey le parquet veut des actes mu ngi ci bi bés le jour la section de recherche a saisi la présidente de la chambre des notaires le 24 septembre en partance pour la Mauritanie Cheikh Issa Sall bloqué à la frontière à l'AIBD hier Majambal, empêché de euh, voyager ñu jàll si beneen yéenekaay buñ jógee ci bés bi le jour L'observateur législatif le Khayetay avec les investitures, maquine ses malaises, les cas gênants de, Fab, de ou Marium Djoufsar, la révolte couvre au sein de l'APR, l'OLIP, l'observateur d'El Amadou Bali, seul sa voix, la liste de Djam de Jam ak en dehors de l'intercoalition il a pris un grand risque mais s'il sort euh, gagnant de ces élections cela va le propulser Mais il euh, l'observateur euh, Bougan refuse le garde à vous euh, par rapport au dossier bi nga a classé sans suite mais aussi yenn bi ci la conférence de presse du mouvement à en mais aussi le parquet financier qui traque les sociétés euh, de Mame Mbaye Niang jàll l'observateur les échos les échos ñaam mu eu di interdiction de voyager Madiambal bloqué à l'aéroport il est sommé de présenter un passeport diplomatique qu'il n'a jamais eu euh, je n'ai jamais jamais jamais possédé un passeport diplomatique mon lol la déclaré affaire et Kader le procureur classe le dossier sans euh, suite Vox Populi mi ngi di euh, vente de détente Bougan Yerim et Kader a relâché leur dossier classé sans suite Bougan revient sur son passage à la cybercriminalité et tire encore euh, sur euh, Sonko ci la LD claque la porte de Khalifa euh, président, membre de la coalition il y en un marre qui sort de son euh, hibernation pour interpeller le pouvoir, mais aussi Vox euh, Populi, mais aussi Vox Populi dellusiwaat na cinq organisations de la société civile qui nga xamante ne ñi ngi étaler inquiétude yi nga comment après Vox Populi. la tribune. Tribune euh, di xëy di wax relaxé Bougane charge encore co et vise la victoire après son arrestation focus sur le législatif du 17 novembre 2024 nous Tribune mais aussi Tribune d'El-Souadna, euh, si euh, Papis qui reçoit le prix global culturel icône

enquête Jomai Faye boycott euh, Macron sommet de la francophone kay bi di wax le chef de l'État sera le grand absent du 19 e euh, sommet qui s'ouvre aujourd'hui en France c'est la première fois que le sommet se tient en France en 33 euh, ans ci yéenekaay kay mi wax les indemnités bloquées concernant le conseil économique social et environnemental kay bi a na di wax ciné les législatives di wax le 10 octobre 2024, euh, Maki va mobiliser euh, ses euh, troupes. Aïcha. Walf Quotidien Walf Quotidien convocation arrestation délit d'opinion y en a marre rouge de colère on ne va pas permettre à ce régime de se livrer à des dérives. Nous n'accepterons pas une instrumentalisation de la justice. ci inscription fourniture habillement transport difficile rentrée des classes pour les parents d'élèves de de Glade. Ah, di aussi si inondation à Matam l'État met à la disposition des sinistrés euh, des euh, chambres équipées tiens. Mohamed euh, Tafsir nous avons vu la dernière fois moom mi nga champion du monde kickboxing euh, Nous manquons de visibilité de considération et de soutien en tant que champion du monde nous avons si euh, c'est vrai que nous en a parlé et tout mais nous na gën faire la une. ayca ñu jaar si suñu mm-hmm. de à part football bon, le soleil <laughs> accès à l'électricité les bons points du. Euh, MCA 2 mi ngi ci le soleil mais le soleil aussi euh, ñëwaat na ci nga euh, la sorte de Bougane Gueye Dany Cheikh Kader qui ont été libérés mais aussi ñëw na ci tonnes de semences certifiées de produites entre 2023 et 2024. après soleil ñu dem sur... sud un scrutin mille euh, gap mom la tay par parabole li nga xam ne moom mooy du 17 à novembre Pape Thiaw et pèlerin aux commandes Mayacine en appoint mi ngi si yéenekaay bi di euh, Sud euh, Quotidien <coughs> après Sud Quotidien ñu jàll si beneen yéenekaay ñaa tribune sport de mi ngi xëyee Aliou tribune sport mi ngi xëyee si ñi nga xam ñom ñoy sélectionneur yooyu ku si melni ni Pape Thiaw Habib Beye Hervé Renard ak Omar Daf

ñu bañ a tànn coach yaa mu neex wala coach boo xam ne rek euh, dem nañ ko jël fee nag andi mais nag gis nañ ne aussi 48 euh, heures yu ñu gën nii Sénégalais yi am na ku ñuy suggéré ne moom moo leen doy pour coach. yenn Sénégalais am na ñuy suggéré Habib Beye daal gis nañ laa majeure partie des Sénégalais si réseaux sociaux yi gars yi moom lañ suggéré. Mm-hmm. boo waxee rek ñu ne Habib Beye. ñu dimbali bu mun ko jël nan ñu jëlal Habib loolu rek laa ci commentaire. wala sama idole bële Pape Thiaw nga xam ne. non Pape Thiaw sax baax na mais nan nan ñu indil Habib Beye Pape Thiaw fi nekk nii baax na. Hmm. waaw mais nañu indil Habib Beye Hervé Renard bu mu ñëw. lu tax bëgg a Hervé Renard ko am nañ compétence ñoo xam ni ñoo ñoo mën Habib Beye. ñoo mën ñoo mën Hervé Renard. waaw le parce que boo xoolee ñëpp dañoo def dañoo def dañoo def. lan ngay investir ci koo xam ne du seen dëkkul Sénégal xamul Sénégal lijjantiwul faale wala lu équipe nationale kese la soxla waaw ah. Habib may bi non. ah non équipe nationale rek la soxla ah. <laughs> waaw mais équipe nationale nga koy jëlee di. Renard équipe nationale dong la soxla soxlawul la neen Sénégal. ah leneen lan nga bëgg mu soxla ko. Ah, yow tey jii imagine toi rek yàlla na yeex tey jii. man faral lu ba ko de damay damay relance rek. ñi nga wax ni ñëpp bu ñu faatu woon tey jii yàlla na yàlla yàlla na yeex ah? hmm. Habib Beye é ah, não nga ko não, Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não. não, não. non non non sport moom dépassé na loolu. d'accord sport dépassé ah, na loolu mais tu as des joueurs euh, et puis et puis tu as des joueurs sénégalais yuy joué si yeneen dëkku jàmbur yi. club yi donc imagine ñu ne woon. nationalité nationalité ya tamit. Pape Thiam Pape Thiam Pape Thiam génnal si leen waaye loolu d'accord loolu nangu naa la ko. d'accord moom maa fay <laughs> man am naa droit wax sama opinion sama xalaat. mais ba tey gis nañ euh, choc boobu si kaw li euh, booy Niang ak euh, ki nga xam ne mooy Reug ñoom it ñu nekk benn ñaari jeunes yoo xam ne je pense que ñoom ñaar seen combat taxaw na donc mu nekk choc boo xam ne vraiment tey mun nañ ne monde lamb ñu ngi koy xaar bu baax a baax combat bu nar a métti bu nar a métti te nar a neex ñun géwal ñu ngi noonu ñu dab ci tey moom mooy dañu def fi nga xam ne record ñu gis euh, ki nga xam ne moom mooy euh, Pape Matar euh, buteur si match contre badge mu nekk Europa League bi nga xam ne moo doon daw démb ah nekk un jeune boo xam ne vraiment gis nañ ne fan yi mu ngi mu ngi def ay ay match yu am solo ba trois derniers matchs yëpp Euh, gis aussi vraiment mi ngi marqué aussi ki nga euh, Mohamed champion du monde aussi euh, boxe kin bi le travail fait que li si le travail fait que commencer. le travail fait que commencer champion du monde champion du monde mm-hmm. Mohamed kenn du fi nee nga wax si Noah Fadiga ba pare. moo Noah Fadiga nekkul si journal bi bëgg nga wax pas de gros ah, changement Fadiga annoncé ah, Fadiga na fi ñëw après euh, bon mais euh, je pense que ne en tout cas c'est un bon jour hein. c'est le fils de Fatiga

Euh, c'est vrai que euh, contrat lié avec le peuple sénégalais à travers par l'intermédiaire de l'État du Sénégal euh, mais gis nañ ni ba ba mu jëlee équipe nationale balaa équipe nationale euh, euh, mooy senior yi. Mm-hmm. jë ne jëloon na fi beneen équipe bi te def na fa jaloore yaakaar naa ni loolu moo tax sax ñu jokkoo équipe nationale senior bi te senior dafa mel ni ñi mu yore woon ñooñu ñi ci bëri la yorewaat après mais Sénégal ba mu ñun en tout cas d'après l'histoire nous ñu koy wax Sénégal jël coupe sur le plan continental mais moom liggéey avec l'équipe avec la fédération et les autorités ba yàlla dimbali ñu mu indil ñu la première coupe d'Afrique des nations loolu dañ koy rafetlu ba Après, jusqu'à un certain moment le Sénégal ne au sommet c'est-à-dire à la tête première nation africaine de football kon le yëpp beaucoup ko la ak bëgg Sénégal amna na fi indi parce que kenn mun un coach mus ko ko def kon même bu ou où vit euh, euh, contre contrat c'est normal c'est à l'État ou bien au euh, ministère de de le reconduire ou wala nous libérer ils ont pris l'option de le libérer c'est normal mais d'un koy sargal mhm. dañ koy sargal dañ koy dañ koy je ne trouve pas les mots pour remercier Aliou Cissé. Parce que vraiment, ce, ce soir-là, quand il devrait venir, quand on les a. bañ demee di l'aéroport, mhm. vraiment, je aéroport. vraiment du au Sénégal Yanguna, mhm. Et qui ki pas, ci bopp bi Aliou Cissé. Mhm. Aliou Cissé nous nous vous disons mille ou bien un million de milliards de merci.

musuñu am étoile Aliou Cissé moo ñu ko andil. Mhm. comme kooku loolu dañ koy félicité bu baax mais encore une fois football amul raison football amul yaa ma neex football amul logique. gis dañ gis nañ fi tout récemment coach bi nga xam ne coach Côte d'Ivoire bii nga xam ne moo jël Coupe d'Afrique bii dañ kaa daax si premier match bu mu amee défaite lañ ko daax ñëw andi benn coach adjoint mu ñëw àggale ko gis nañ fi un un coach boo xam ne dafay dem jëlee équipe première division yóbbu deuxième division ajeeg moom première division boo demee tey teg la ay defet ñu dàq la andi keneen c'est-à-dire football moo tëddee noonu amul logique mais moom heureusement ba dàquñu ko contrat mooy jeex. contrat bi ñu arrêté ko. Mhm. donc nag il faut sortir par la grande porte et garder la tête sur les épaules. ñu ngi koy félicité ñu ngi koy félicité bu baax a baax a baax di ñaan yàlla aussi ki nga xam ne tey moo koy wuti moom it yàlla ko ba. mu meuna def ba mu mën def résultat. Mhm. le procureur aussi dañ koy remercier le fait que mu andi stabilité.

ngir yàlla andi leen jàmm andi stabilité dëkk bi métti na mënuñoo boole métti ak ay histoire ak ay coow yu jeex. Mm-hmm. ngeen bàyyi seen provocation yi tamit voilà di wax ne état bi aussi. il faut eh, pas tomber dans le piège. <laughs> mu a tomber dans le piège. <laughs> Uh-huh. c'est-à-dire ñi nga xam ne ñu ngi toog di provoquer di wax yenn yi ñu bañ leen fekk si. te xam ne lenn moo leen ñor mooy dañ leen far pour ñu liggéey nañ concentré wu seen liggéey daf lu ñuy def ñuy wax ñu bàyyi leen ñu wax tout simplement.